nit ku baax nit ku yaatu nit ku yëg ay mbokkam man tey ji boo gisee ma fonk dafa bëgg ay waajuram moo tax man mii tey ji damaa ñàkk damaa teel a ñàkk waajur mais Aziz Ndiaye moo tax tey ji su ma toogee duma xalaat sama yaay duma xalaat sama papa ndax moom sonalu ma ci dara lu ma bëgg loolu la bëgg lu ma wax loolu la baax sagal ma sagal samay rak sagal samay mag tey ji mi ngi jël sama mag bu góor suñu taaw teg ko ci wetam mi liggéey ci moom tey ji bu ko neexoon du ko def mais Aziz Ndiaye moom dafa nekk nit koo xamante nit ku oyof amul benn problème dañ koy ñaanal yàlla daal lu mu bëgg yàlla ko suñu borom bi defal yàlla jàppale ko ci kanamu njabootam ba ay njabootam màgg ba koy fay lii muy def ndax man mënuma koo sant ndax daf maa defal lu rëy daf maa jàppale tamit ci lu bari moom moo tax daa jooyu ma yaay jooyu ma papa di sant sama gorotam mi xujja jóob moom mi daf maa jàppale ci lépp at ale Ndiaye samay njëkke bàyyi ma kenn man yàlla daf ma dimbali man samay waajur sëy rek lañ ma sant léegi ma ñëw dugg ci kër gi tamit Aziz Ndiaye di jóg di daanu ma nekk ak moom dama ko bëgg ndax bëgguma ko ngir alalam bëgguma ko ngir dara dama ko bëgg rek te yàlla tax ma nekk ci wetam nekk ak moom di ko jàppale nag ci lu bari xooluma dara am bu ma joxee baax na bu ma joxut baax mettee teewut xujo jóob tamit daa nekk ci côté bi tamit di ma jàppale su ma toogee su ma yor moo may jox su may dem xew moo may jox léeg-léeg damay dugg sama biir nekk fekk mu tegal ma ay yére du bàyyi gañ laa du bàyyi jasneer du bàyyi brodé du bàyyi dara tey bu ko neexoon du ko def xaw na yàqu ba mu dem bitim te ma nekk toog ci kër gi tamit du muñ ndax sëy rek laa bëgg xaw ma caaxaan xaw ma taxawaalu kenn du ma gis fenn toog sama wetu jëkkër di ko jàppale lu ma jox baax na lu ma joxut baax na sonalu ma ko ci dara te man yàlla daf maa dimbale xaw ma wax xaw ma dem xaw ma dikk toog sama wetu jëkkër samay wetu goro samay njëkke lu may def samay njëkke laa koy àndandoog def lu may wax it sama goro laa koy waxal. Aziz ndax bi mu méttee saalitoon na. xawoon naa saali tuuti nag waaye nag dafa nekk nit ku baax ku am ngërëmu waajur moo tax nag dara am du yàqu te pare du sonn ci dara. ndax dafa nekk nit ku baax Aziz Ndiaye moom dama koy ñaanal yàlla rek yàlla bàyyi ko suñu kanam ak ci kanamu njabootam bañ koy weere ko weer moom nag yàlla da ko dimbali musta tàng moom moom dafa nekk nit ku oyof Aziz Ndiaye lu na lay def day fa day fo day kaf day fecc sax da koy def dafa nekk nit koo xamante ni moom man dama cee sant yàlla bu ma yàlla booleeg ay Ndiaye dama cee sant yàlla bu baax ndax dafa nekk nit koo xamante ni amul problème mu àdduna foo ko tàggu mun ne la demal du la tere ci dara loo soxla la mi ngi nii su ma amee problème su ma ko waxee mu taxaw faj ko mu jeex samay raq samay mag la même chose. moom nag bëgg na lekk trop mais moom ceebu jën daal la gën a bëgg moom. Mm. ceebu jën moom bëgg na ko trop. chérie je t'aime oh. <laughs> moom xam na loolu sax. Aziz damaa sob de <laughs> dama sob de ah. discours bi mooy dafa may reetaan la parce que Lamine. Ah. ki nga wax loo man sax mënu ma ko wax loo léegi. damaa sob lii yëpp nag complicité Baye Ndiaye la ah. waaw vraiment lii yëpp complicité Baye Ndiaye la. comme comme ni mu ko waxee ah. Mm. moom mooy suma première femme. Mm. yàlla mi ngi def maa ngi ko takk en quatre-vingt-dix-neuf. Mm-hmm. Mosul fay. Mm-hmm. def nañ seize ans de ménage. Mm-hmm. comme ni mu ko waxee rek. waajuram ak bu góor ak bu jigéen dañu teel a génn àdduna. Mm-hmm. mu jël ma def ma papa def ma yaay. Mm-hmm. fekk na bi muy metti mm-hmm. fekk na bi fi dara nekkagul. mu fekk bi mu metti fekk bi lépp di yàlla def sutura ñuy sant yàlla. macha allah yàlla yàgg. nga xam ni moom dama koy ñaaral c'est ma suma jabar la. mais nit ku baax la. nit la koo xam ni ku oyof la comme ni mu ko waxee rek. tey soo tegoon fii 10 millions. li mu ci soxla rek lay jël. du ma sonal ci dara. du ni jox ma duma laaj lu ma amul. duma teg fitna. duma teg coono. kon dama koy ñaanal yàlla. ndax jigéen bu demee bu jural la ki nga tuddee sa papa. ak ki nga tuddee sa yaay. Mm. da nga ko war a ñaanal mu gudd fan. ndax moom loolu la ma defal mm-hmm. kon maa ngi koy ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla saxal ci kanam njabootam pareegu ma de boo parewul foo jëm ñaari soxla nga am waaw loolu dëgg la waxtaan naa ak aaw bi waaw waxtaan naa ak ñaareel bi ah ayca bismillah ñaareel bi tamit wax la ah. mbokk yi ñaareelu Aziz Ndiaye pour ma wax ci Aziz dina yomb dina jafe dina yomb parce que ku ma xam la te damay kontaan si wax si moom dina jafe parce que peut-être miinuma lu jëm ci affaire télé génn et autres ma yaakaar ne dina xaw a jafe côté boobu mais pour ma mën a wax ci Aziz yaakaar naa ne lu ma yomb la ci gàttal daal nit ku baax la nit ku baax la nit ku yiir njabootam yiir euh, képp ku ko jege jafe-jafe comme comme couple bu nekk y a des hauts y a euh, comme àddina aussi tey mu neex suba mu naqadi. voilà ci ci. àdduna waaw mooy euh, jafe jafe na jafe euh, jafe na jafewul. jafe na parce que jeune buy wut métti na si moom mais aussi mu nekk nit boo xamante ne liggéey laa ko xamee. su donner à fond ñafeñ léeg-léeg nag mu métti. comme àddina rek comme ñëpp comme pour ñëpp comme képp ku nekk jeune di wut mu metti mais léeg-léeg tamit mu neex comme partout Aziz 6 heures du matin lay yeewu secteur heures génn na këram bala muy ñëw guddi kon xam nga kooku su yeggee fenn fii te nga xam ne du nit buy tricher du nit buy wax lu dul lu dul dëgg nga xam ne nit boo xamee ne lépp lu muy wut ci woom ci yoon la koy teg kon yaakaar naa su yeggee fenn fi warul a bett macha allah te am na luy des yu ñëw incha allah. nit bu bari yërmande la li ma koy wax mooy juste yoon bi mu nekk bu ko si dara dévier c'est-à-dire que soo nekkee ci yoonu dëgg bul ci ragal wéet bul ci ragal ndok-ndok parce que ndok-ndok ak àddina ñoo ñoo ñoo ànd bul ci ragal wéet parce que tôt ou tard nit yi dinañ la fekk ci et dëgg mooy njëkk mooy mujj léppam lu muy def si àddina moom li ma koy wax mooy na nekk lu dëggu na nekk luy dëgg. te mu nekk ci yoon ci muy persévérer jëm ci kanam euh, nit bu social la kenn waxatu ko parce que Aziz yaakaar naa ne à chaque fois su ngeen koy gis ci télé ci cadre làmb bi muy tëgg laa mën a wax parce que tey ci loolu li ñuy wax vous le voyez tout le temps il est entouré de sa famille de ses frères papaam sax mag la mais terewul tout le temps mu ngi jug di ñëw di koy encadrer yaakaar naa ne ak ay am di jàmmam ay xaritu démbawam ñoo xamee ne moom ñoom ñoo defandoo lu bari yaakaar naa ñooñu ngeen koy gisal tout le temps àddina nag day dox nga xam yeneen nit dina am tey ñeneen ñu yokk mais yaakaar naa fu ñu gis Aziz dinañ ko gis ak ay nitu démbam nitu tayam ak ay frère am papam je crois que loolu social rek weesuwul loolu nit la boo xamante ne mën na reetaanloo nit mën na tooñ mën na chayute comme añ ceebu jën moom bëgg na ko mm. voilà bëgg na lekk reer aussi comme reeru ñëpp rek loo ko toggal moom amul amul euh, par exemple mu ne la lii voilà nit la boo xamante ne loo ko defaral dina ko dina ko lekk su neexee. Mhm. voilà buggul aussi añ bu naaj. loolu daal xam naa ne bëggu ko. tàng na xol. non non du gàtte. Mm, waaw il est passif et puis que euh, mën na mer ni comme nit bu nekk mais dencul dara ci xolam. je suis de tout cœur ak moom ñu ngi koy soutenir comme li ñu mën aussi que je l'aime chérie je t'aime <laughs>